ñu ngi ñaan yàlla nag jàmm rek am ci te tous les députés de l'opposition et principalement de Yewwi Askan bi seront au tribunal pour soutenir le maire de Dakar bi Diaz lu ne nag gis ngeen ko jéem nañ ko koo def pour daanal mais am na loo xam ne incha allah du ñu ko nangu donc ñun ñëpp bu soobee yàlla danañ fa dem danañ ko apporter tout notre soutien parce que c'est notre maire ñun ñoo ko choisir donc il faut ñu dem soutenir ko beneen bi mooy le docteur Alphonse Sambou nga xam ni kenn ku bokk ci yéen moo yées ci journaliste gëm naa ni sax am na ñu nekk ci yéen ñoo xam ne bëggatuñu nekk journaliste ak ndax Madiambal Diagne jël wax bu ñaaw teg ko ci sur l'honorable député euh, Alphonse Sambou parce que tout simplement dafa sol un le le le avec avec avec. te loolu dafa am aspect culturel kese mu jël ko bonnet cosaan la mu jël ko dëkkale ko ak ak rébellion amul lu ko gën a ñaaw ba pare nag mu wëlbatiku fen ay fenam parce que ci fen la dëkk li suñu waa gi doon dafa fena fena ba ñuul wëlbatiku jël mbaxana mi sol ko jël yére bi sol ko ne woo na Alphonse Alphonse baal na ko tey fen Alphonse baalu ko te dina xam ne Alphonse baalu ko incha allah dans. 48 heures donc ñun aussi la coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi ñaaw lu loolu di apporter notre soutien à au docteur Alphonse Malé Sambou te fan yii di ñëw ma Madiambal dina xam ni réew mi changé na te la amoon dootul amati jërëjëf.